wane ni opposition bi la pour amate nit ñi pour également suba lu mën a xew ñu ni yéen la woon ñu xamal leen ni tey jii nii yeewi askan wi boo demee ci résultat local yi mujj rek ci trente départements ci quarante six yi mu compétir presque huit cent mille personnes voteel nañ ko ku am la possibilité d'identifier ces huit cent mille pour ñu tegal la kanam wala jox la baat pour nga mën a xam ni kii mooy kan donc woote bi c'est pourquoi qui peut identifier ces 800 000 là et à partir de ces audios ak partir de cette vidéo qui peut identifier la personne yéen di police boo leen ko mënul def ñun nan lañ koy defee yéen ñi am instrument yi war am outil yi war am logistique bi war boo leen ko deful nan ngeen mën xaaree opposition bi def ko donc lii ngeen ñuy wan ni amul benn solo ci ñun orientation bi ngeen bëgg def ci bopp yi dun ko téye duñ ko nangu li wér mooy keroog jàppoon na ni manifestation bi ngeen interdire ko on a été très républicain Sénégal yëpp nangul ñu lool mais li wër également mooy sunu manifestation daan ko def le mercredi bii nu jëm incha allah donc yi ngeen ci bëgg dugal pour tiital nit ñi yi ngeen ci bëgg dugal pour alerter nit ñi mën na ñàkk parce que manifestation boo gis xol bi la ci tax a jóg nga cay demee la ca am nag mënoo ko maîtriser Benno Bokk Yaakaar ci boppam ñu fàttali ko ko bi ñu paree élection yi ñu duma leen duma yu metti ñuy wër di def seeni ay tournée ci réew mi pour rassembler waat les militants ñoom ci seen bopp am na seen yenn manifestation dans certains départements yi nga xam ni yeggul parce que gars yi dañu saboter manifestation yooyu waxuma laa nag ñun donc ci li ngeen ñi bëgg yóbbu exercice bi ngeen ñi bëgg defloo duñ ko def responsabilité bi ngeen ñi ci bëgg dugal duñ ko gàddu te li wér mooy bu fekkoon na ni am nañu une maitrise de tout ce qui va se passer duñu ñëw toog fii ci yéen di leen informer bu nu demee ba ci biir constitution bi ñu dugal ñu leen di informer c'est parce que dafa am cër bi nga xam ne yéen a ko ci moom cër boobu mooy sécuriser la manifestation sécuriser les manifestants sécuriser le pays et foofu la mën yam ak yéen donc loolu xew na fi démb pour wane ni ñoo ngi nekk di def ay montage pour tuumal ay leaders ñoo ngi def di def ay montage pour tuumal Yewwi Askan mais Yewwi Askan wi bu ñuy avancé dañuy avancé de façon droite et directe c'est-à-dire que ki nga xam ni da koy wan ginnaaw ñu lay dóor kul pañ bu ñu demee ba loolu des si dañuy jàkkaarloo ak yow c'est pas des lâches c'est un lâche qui agit ainsi c'est un lâche mooy jaar ci ginnaawu nit di ko rendi mais un nom au véritable sens du terme li ngay jël ci dënn nga koy jël parce que dangay ngay avancer de façon droite donc ñun li ñuy def luñ ci nar nit dina ko xam luñ ci tax a jóg nit dina ko xam et liñ ci tax a jóg wax nañ ko bind nañ ko c'est informer les populations ak un rassemblement pacifique donc ñoom lu ñu ci def montage rek seen responsabilité la pour tiital nit ñi mais ñuy wax sénégalais yi ni loolu bu mu sonnal kenn bu mu indi jiixi jaaxal ci xelu kenn parce que réew mi ñoo ko moom sénégalais yi ñoo ko moom président Macky Sall moomu ko sept sages yi moomuñu ko les autorités administratives de la direction générale des élections moomuñu ko Antoine Diome ñàkk jom moomu réew mi réewu Sénégal yi ku nekk da nga ci am cër li metti rek ci loolu laay daanelee mooy on avait pensé que sur cette question les sages allaient prendre une décision juste et sage et je reste persuadé que n'importe quel autre Sénégalais aurait pris une décision plus sage et plus juste que celle prise dernièrement par les sept supposés sages qui aujourd'hui ñoom ñoo dugal réew mi ci situation bi mu nekk kon daal di appeler ñëpp à une manifestation à une mobilisation inédite te yëg noonu ni mobilisation bi nit ñaa ngi koy def fu nekk ci biir réew mi ci bitim réew ñu leen di encourager à continuer et président Khalifa l'a dit hier au commissariat lii ngeen di génne dina ko wan ça ne nous engage pas la sécurisation c'est de votre responsabilité et c'est cela qu'on attend de vous je vous remercie